asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 18 juin 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey moo xam sunu làmb la la tribune Leewtoo TV ba ca Lutte TV ku ci nekk daal xëy nga ñëw ci combat yi nga xam ne ñoo fi amoon ci fan yi ñu génne jàppal bu dee sunu làmb la moom dafa xëy tey ñëw ci écurie Fass nee na day kii nga xam ne nii day moo di Gris 2 nekkoon espoir u écurie Fass day Reug Reug freiné na ko loolu daal yëglikaay bi moo ñu xëy tey di ñu ko wax maanaam daal Fass moom ñàkk nañu seen yaakaar ju mujj ja muy Gris 2 daan nañu ko nga ko daan nag du kenn ku dul kii nga xam ne nii mooy Reug Reug bu caaroy mu mel ni ki nag sunu làmb yemu ca dugg na ci écurie Fass bu baax a baax ne na cadre Fass yi de fi mu nekk nii boo bëggee dëgg-dëgg moom ci mbedd mi la ñu ne maanaam daal mu nga ca mbedd ma newuñu ci lu leer maanaam daal li méttee métti ci la ñu nekk fi mu nekk nii beneen ba ca des mooy espoir ya tamit fi mu nekk nii ci xel ñaar la ñu toll moo xam Pape Ndoye la wala muy général wala Baara Ndiaye ñoom daal fi mu nekk nii seeni mbir tamit leerut maanaam ñoom seenam xel daal day jeexi jaaxa ci dut daal la ñu ne sunu lamb ñu ko wax cadre moom na mu ko waxee rek Gris Bordeaux Papa Sow lagros ba ci forsa moom sunu laam ne moom ca mbedd ma daal la ne mu mel ni ki ñoom seen ay mbir fi mu nekk nii de taxaw la def dox daal defu ko sunu làmb xëy tey dinu ko wax yëglekaay bi nga xam ne nii moo di sunu lam tamit ñëw na ci ki nga xam ne nii moo di rëg-rëg ba tey ca waxtaan mu séq ak moom rëg nag nee na bu ko lig ni ka laay joxataa avance léegi maanaam su ma lig joxe avance léegi dama koy jël ñu ne ko waa rëg léegi nag foo jëm mu ne man daal maa ngi fi pour ñëpp rek la ma waxoon laay waxaat daal bàyyi ma fi kenn ku ñëw daal damay bëre ak yaw rëg-rëg a xëy tey di waxaat ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb ñu ne ko it avec bi ndax da nga koy lit simple bi da nga koy bàyyi rëg ne loolu itam dépendrewul ci man de ci sama staff la dépendre ndax nag yilifu ma sama bopp dañu maa yilif loo ci mën a dégg daal ñoom lu ñu décidé rek loolu laay def rëg-rëg a xëy tey di wax loolu waaye laaj nañ ko tamit kera ñëw gi nga ñëw arène nationale te gisuñu fa amet dem rëg-rëg ne na loolu xëy na dafa ñàkk jot rek waaye man moom loo ci mën a dégg daal sel ka kii di bàyyi ma njoon gërëm naa ko bu baax a baax nee daal moom defal na bàyyi ma njoon mention spéciale Xaadim Njaay ak isaa Pouy nee na nag taxaw boo xam ne nii lañ ko taxawu day mooy taxawu doom ak baay wala sax rakk ak ay magam moo tax nag nee na day lépp loo xam ne nii noonu la woon biir caaroy moom la na fas yéene daal dafa andal couleur bu baax a baax ñu ne ko waa rëg est-ce que du mu nekk nii danañ star nga biir caaroy wala ci làmb ji rëg ne déet man moom loolu nekkuma ci lenn man daal xale laa buy liggéey nekk ci làmb ji loolu mooy waxi rëg rëg fii nga xam ne nii moom moo di yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ba tey bu nu continuer fa nga xam ne nii nag moo di Lutte TV rëg mu nga fay wax nag li leer bare day ama Balde ak Sa Thiès ñii moom pare naa ngir bëre ak ñoom waaye jamono ja muy wax loola ka ay musikam di seex moom seex day lam ca teg sax moom moo gën a doy waar seex nee na ba leer ñun ñooñ sax ñoo jóg ñu ne ko seex lu leen tax a mu ne ama seen wala móotloo ku fa daan daal ñooñu la ñu soxla seex a wax loola ca lig tv waaye ca Leewtoo tv moom Ama Baldé moom daa mel ni xaarul mbir ma teer mu tontu moom teel naa wax nee na ko rëg-rëg nga mbër mu mag nga yàgg naa koo wax tey te wax naa la ko daje nañu dunya nga may may ndox ma lay may ndox ñuy liggéey jàmbaar nga mbër nga waaye ama nee na am na loo xam ne daal reef la maanaam gént ndax nag nee na am na loo xam ne ku tëddun ba fajar ñu wax la ne lii am na est ce que bu keroogee duñ ko gëm waaye nee na nag nañu liggéey ñun ñëpp tànk suuf jaan suuf yàgg-yàgg daje day am loola ci Leewtoo TV la ko Ama Baldé waxe nee na itam kii di Luc Nicolaï xëy na moom promoteur la moo yor xaalisam di tëgg moo tax mu waxee noonu waaye moom daal jàpp na Reug Reug mbër la moom Ama Baldé waaye nee na lu ci mën a xew daal bis bu nu waree daje moom dañuy daje ba mu saf mooy waxi Ama Baldé fa xam ne moo di ca Leewtoo waaye ba tey rek bu nu continuer fii nga xam ne nii moo di ca sunu lam dañ fay ñëwaat mel ni ki nag ka nga xam ne moom daa am ndam muy booy bawal sunu lam ne day ndamam loola daa mel ni day ah du ndam lu rëy ndax nag façon ba mu ko amee moo tax xëy na yëglikaay bi ñëwee ca ñoonu ñaari ñi moom seen combat daa mel ni ba tey bu jeexee itam ca làmb ja wala ñu niil daa mel ni ku ci ne ba tey rek yaa ngay tuumaal sa moroom mu jéen kayre ak Quench jàppal jéen nee na ko day yow combat bi yaa ko sabote yaa ñëw daal di def li la neex loolu moo tax combat bi mujj fi mu mujjee Quench ne ko dangay wax rek yow mii wax ngay def ndax la nga daan def defoo ko te man ma bëggoon mooy duma la ma nga nooy nepp door laa daan maanaam daan la daal jël bu leer a leer mu mel ni ki daal ñoom ñu ngay tuumaalante rek ku ne naan sa morom yow la ak man leneen loo xam ne tamit gis nañ ko muy combat boo xam ne dañ ko doon xaar diggante Aliou Mané ak Sunjata ci mois de join bi nga xam ne ci lañ ne waroon a am le 22 juin lañ yaay tëgg ko combat ba nag dàq nañ ko ba le 6 juillet loolu li ko waral nag sunu làmb nee na kii nga xam ne moo di Ngaaka Blindé day moom lañ jox arène bi mu war faa tëgg ab concert yéeglikaay biir suñu làmb ba tey moo xëy dinu jox boobu information leneen loo xam ne tamit gis nañ ko mu mel ni ki daal ah drapeau chef de l'état bi fi mu nekk nii sone na mbër ya ñu ngay waaj ñi nga xam ne ni tamit ñoo di équipe ñu nga ca waaj mu tara tara taratal waaye loo ci mën a dégg daal li am ba des de fi mu nekk nii làmb ji jax na lool ndax nag fi mu nekk nii yaama ne jeeg maane la ji yaag diw duma maag moom maag la ji mu ngi mel ni tulleeg màlle mu mel ni ku kon làmb moom lii la soxla coow rek waaye nag yàlla nay doon coowal jàmm salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV yëpp ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen wax namoon naa leen trop géej ñu nañu gisee géej ngeen ma gis seen revue de l'arène tey Babacar maa ngi fi di nuyu di la nuyu bu baax di la wax namoon naa la maa la raw Aïssa koo na mën a la maa ngi lay fay yow tamit di la nuyu di la ñaanal rek yàlla gën a wéral cër yi barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam te defal ko bépp doomu aadama di la wax ne tamit waa gars yi na moon nañ la daal Babacar tey ñu ñëw ubbi waxtaan bi ak euh, ba tey euh, combat yi fi jotoon am si weekend bi mooy continuer seen prolongation mën nañ ne kii di Reug Reug ak Gris su suñu lamb ñëwaat na si ñaari mbër yëpp ku ci mel ni Gris moom mu ñuy xamal ni rek Fass dafa mel ni perte na ki nga xam ne moo nekkoon dernier espoir am parce que boo gisee ténor yi fa nekk amuñu combat yeneen espoir yi ca des seen combat ñi ngi naan dana amam du am waaw nee na toll nii daal seen dernier espoir bi ñu amoon yaakaar ci moom mu andi leen ndam tombé na àllu maanaam daal mbir ma mujj a tàbbi ca ndox ma. Ah. waaw loolu moom doy na waar loolu sunu làmb jàngat ah boo ko xool tamit day doon day niru dëgg. waaw doon doonte sport nag moo tëdd ni que di nga am défaite am match nul am victoire waaye nag boo xoolee phase moom actuellement ni muy doxe rawatina ci côté mbir yu mag yi moom neexul bu dee tamit ki nga xam ne moom lañ kii parce que kii ñu bëri dañu gisoon nekk kat yaakaar la ci écrit bi te ba tey xëy na mën na continuer doon yaakaar mais nag bu fekkente ne ak ni ñu ko yaakaar ak ni ñu a métti ci biir écrit face que war a tamit lu méttee métti la parce que écrit la ba nga xam ci li ñu jàpp wala li ñu xamal mooy que ni bokk na si mooy écrit bi njëkk a sanc fii ci Sénégal yaakaar naa moo am ay kayit kon écrit la bu yàgg ay ate ate at am na ko ñuy dox ba ñëw tey mu am na mu demee ni ci seen côté mbër yu mag yi ñii ñàkk seen ay combat ñii mënuñu am combat loolu tamit yaakaar naa kon direction technique ba am na ci part de responsabilité ah, ci part de responsabilité mbër yi tamit am nañ ci part de responsabilité ba ci sax ña nga xam ne ñooy supporter écrit bi pour man parce que ku ci ne rek mbir su amee ay satu gis nga léewtu gi am na loo xam ne su fi amee yow am nga loolu la ci war man am naa lu ma ci war taal am na lu ko ci war keneen am na lu ko ci war parce que ku nekk rek fa nga ne la koy doxal am na am nga ci responsabilité bu taxawee tamit mënoo dégager sa responsabilité kon lañ leen di wax mooy di ko wax bépp écrit ñoom ñi nga xam ne ñu seq écrit bi président baak ña moo àndal direction technique baak supporters yaak ñëpp dañu war di toog di waxtaan ak mbër yi di xool li leen di jëmale kanam parce que nag naa la wax leen de sport amul naxaati. te jafe woon na Babacar nga toog saison lëmb doo gis eh, benn ténoru Fass takk ngemb Papa Sow Lac Rose Gris Bordeaux Forza ñoom ñëpp. toog nii si bande na trop. waaw lu doy waar la lu kenn mësul yaakaara ah, parce ñoom boo xoolee da naan ñoom ñooy équipe bi nga xam ne nii ñoo ëpp les mbër yu bëri grand combat ñoo ko lamsaar boo xoolee ki face da nga daan gis année bi seen mbëri nañ ci seen seen mbëri seen mbëru grand combat yëpp dañu am combat bëri yaa ngi dégg ren boo xoolee nag fi mu nekk nii loolu dafa mel ne mu ngi bëgg a wàññeeku ndax Lac Rose amul combat Gris Bordeaux noonu Papa Sow noonu Forza ñoom ñëpp kenn amu ci combat Tafa Guèye de yaakaar na moom moo ci am combat actuellement yaa ngi dégg Gris 2 mi tamit ñëw na amoon na combat mais gis nga fi mu mujj jaar ñëpp a ngi ci bande tous bi toog muy ne daal nañ ko xoolaat daal ñoom nañ xoolaat seen toogaay bu baax baax waaw sang waaw surtout sangutu boobu xaw ma lu xew mais war nañoo xoolaat seen bopp ñoom waa écurie Fass. kii di Reug Reug moom ginnaaw ndam bi mu am moom li muy xamle rek mooy kii di Luc Nicolaï saa su ko joxee avance pare na pour jëlaat ko. ah waaw wax na dëgg di Aïssatou day liggéey. <laughs> ah booy liggéey li li nga xam ne moo lay may ay koppar kañ nga gis ku la ko mën a jox te loolu mooy sa métier ah wallaay am na ci am man loolu mu wax laa ànd mbër kay ku la jox avance bu la avance ba jaralee adversaire ba jaral la pour mën nga nga mën a encaisser dem bëri ji moom la rëg-rëg defe naa mbër yëpp ne ci seen xel ya ku ci xam ne moom lañ jàpp ne sa adversaire la su ko defee da ngay dem bëri ji nga waajal bëri Babacar combat boo xam ne jeexagul moom ba tey seen prolongation mi ngi continuer muy euh, kii di Quench ak euh, Diène Kairé ñoom ginnaaw nul ba ñu amoon ba tey ñu ngi continuer di jiiñante si biir arène ba ku nekk nee na sa morom taxawal taxawal ba léegi nag ci ci la ñuy continuer Diène moom nee na dootul bëre kii di Quench parce que tapet la dafa ragal Quench moom nee na bébét bi mu amoon mooy ñëw jàpp kii di jéen dóor ko doog ko daan mais lu gis nañ nag loolu lépp dara amu ci. xam nga pour man loolu ñuy def rek guddalub jël la rek ak guddali wax parce que li tax mooy euh, nit ñi dañ leen doon xaar ci combat bu neex bu explosif combat bu gënoon am technicité amateur yi dañ jàppoon ni bés bu mooy nekk diggante Diène ak Quench parce que li ñu wan sénégalais yi moo tax ñu ay xale yoo xam ne espoir lañ ci làmb di espoir ci fi ñu dëkk ci taxawaay tolloo ci doole neexoo ci lépp daan dëkkante fu ne dina am ak du am ba Luc Nicolaï décroché leen jox leen amateur yi ñu war a bëri ñu ñëw suñu combat ba nag def benn congu après bañ fa yàggee yàgg arbitre àtte ñu miitaat dellu si bëreetuñu ku nekk taxaw kenn ku ne du ma daanu eh, làmb nag am na loo xam ne yow boo ko ëndee bul sonal sa bopp làmb ja du neex fi mu nekk nii pour man ñoom bu ñu meree kenn nañ mere seen bopp parce que lu fa xew ñoom la promoteur ba fay na leen. arbitre ba soufflé na amateur yaa ngi seetaan kenn duggul ca géew ba supporters yi ñëw na ñoom dong nga fa newoon kon yaakaar naa lu fa neex ñoom la lu fa naqare it ñoom la dama laa bëggoon def nii nag wala dama la doon def nii pour man loolu moom jaratu ko wala jéen mu ne dootul bëree Quench loolu tam pour man jaru ko ah parce que comme li Ama Baldé wax démb du ma def nangam wala du ma bëri ak diw mbër na ko ëpp di wax àddina day dox kenn xamul luy xew ëllëg moom moo Quench ay adversaire potentiel lañu jéen xale la boo xam ne bi mu ñëwee ci làmb yàggul mais mu ngi wane boppam Quench suñu benn defet la am si làmb yaa dégg nekk mbër boo xam ne day drainer full jiin kazalika naka noonu kon li ma leen wax daal niil bi am na nañ ko naqarlu joxante cër fexe tamit bés ñëw lii nga xam ne moom lañ teg amateur yi ci naqar ñoom ñu faj ko mooy lan ñu pour man loolu mooy solution bi mais pas nekk fii di ko puusante ku ne naan yow la du man waaw te olof na koy waxee am na nu mu nee na werante nangam day yokk waaw loolu jëru ko quoi waaw Babacar loolu yàgg nañ ko fi gis ñul am ñu daal di tëggaat combat def ko combat éclaircissement du ñàkk ci carrière mbër ñu daal di dem euh, seeti li nga xam ne mooy Aliou Mané Sunjata ñoom euh, waroon na bëre mais combat bi dañ ko ba le 6 juillet incha allah. waaw loolu Lay Ndiaye moo ko tëgg ñu koy nuyu di ko jaar moom tamit di promoteur bu bees vraiment ñëw ci làmb moom tamit tëgg combat bu neex Tafa Gueye de ak kii tamit moo ko tëgg ak euh, Abou Niasse Sunjata Aliou Mané ah pour le 6 juillet nee nañ nag li ko waral mooy stade bi wala arène bi dañ koy jox Ngaaka Blindé pour benn concert waaw loolu tamit vraiment ñu ñaanal nga ak mu réussir ko lay njaay tamit date boobu ñu ko joxaat yàlla mu yàlla nañ ci yegg ak jàmm te bu ñu ci yeggee mu réussir ko di wax ne tamit daal wax loolu am na solo trop daal Aïcha Babacar ñu dem si euh, général Malika moom mi nga xam ne ci weekend bi passé dem na fële ca Fatick daal di fay gagné tamit euh, benn gala de sans frappe. waaw waaw général Malika day comme loolu ñu wax rek di ko fi félicité parce moom itam dafa bokk ci espoiru lamb yi ah rawatina lutte simple bi ak lutte avec frappe bi ñuy ay xale yoo xam ne ñu ngi wane seen bopp yaakaar naa ne ñoom moom général Malika gagné na tournoi sax man Babacar dama ne est-ce <laughs> waaw yaakaaruma ko waaw parce que itam boo xoolee li muy ñàkki tournoi léegi bëreetul kon loolu dañ ko ci félicité di ko encouragé gis nañ ko tamit ci dara résultat bi yaakaar naa ci équipe bu bi ci la bokk mooy seen pile de cent kilos waaw kon loolu lu ama am solo la daal mbëru lit avec mbëru simple yooyu damay wax ne mbër yi nga xam ne ñoo concentré ci avec frappe bi nañ leen bàyyi xel parce que naqari nañoo bëril guddi te naqari nañoo daan parce que benn doole macha allah te ñu ngi compétir te ba pare jàng nañu xeex général Malick rëg-rëg njel jon zambala ah Serigne Ndiaye numéro 2 Ibou Senghor Cheikh Tidiane ñaa bu ma ko doon lim du fi jóge boo xoolee xoolal bu baax li ma la wax bàyyi ci xel de. dañoo yeewu nag Babacar parce que bu njëkk ba nit ñu def euh, simple amuñu woon daa dañuy yem ci simple bi amuñu ambition dem si frappe bi ba suñu fee ñëw day fekk duñu mën dara si xeex wala buñ ñëwee mu nekk lu metti si ñoom. bien sûr lool nag dafa mel ni kon léegi dafa mel ni ñoom dañoo lijjanti ba xam yoon wa parce que dañuy entraîné comme ni mbir yi di di dem di defi boxe. moo tax nag fi mu nekk nii moom ah daa ni ñu ngi bëgg ba lakkal mbëru lit <laughs> lit avec Fra bi de parce que ñoom dañu am compétition tout le temps macha allah ak li nga xam ne mooy drapeau chef de bi kii di équipe bu Kaolack ak euh, Fatick ñoom euh, à partir du 24 incha allah dañuy dugg euh, bu mag boobu noonu. waaw kon de da fi mu nekk nii moom regroupement fermé moom moom wax ja jeex na leen doy tànn nañ leen fas leen nii ne préparé ngir lan drapeau chef muy loo xam ne tamit mbuur la war a amee. di nekk lu nar a neex ñu ci profité rek di nuyu waa Mbour yëpp rawatina promoteur yi dëkkee foofu muy ku mel ne Ligue Nicolas ko teg mbër yi di leen wax ne daal contrat résultat moom nañu xaar ne que ren naa métti te nar a seere ndax équipe yi ni ma gisee mbër yi composition bi moom ay sa moom dina seere trop trop trop macha et puis nag loolu lañ soxla ci compétition ah. bëgguñu compétition ñu ñëw rek ñu xam ne kii moo koy jël mu demee noonu du neex mais dañu bëgg loo xam ne day seere quoi ñu kii lay doon wala kële ba werantaam ci boppam yi jeex daal. Babacar ci loolu la ñuy tàggoo ñi xam ne ñooy suivre Leewtoo TV di nuyu maam Talla ci lébu ci caméra bi di nuyu maam yàgg euh, tamit si caméra bi fa ci équipe bi la bokk di nuyu Ousmane ci montage bi ak équipe bu Leewtoo TV bi yëpp képp koo xam ne yaa ngi bëggoon Leewtoo TV di safoo Leewtoo TV ñu lay nuyu bu baax di la ziar Babacar. waaw noonu la demee ah waaye nag mention spéciale tonton Diaw tonton Diaw borom waaw waaw tonton Diaw moom. waa waaw mooy suñu directeur moom man ñëpp tonton Diaw maa ngi lay di la <laughs> mais di nuyu tamit Thialisa. Ah. ah <laughs> ah waaye non calis rek maa ngi koy nuyu di nuyu waa Leewtoo gi yëpp comme ni nga ko waxee ñoom yàgg xam nga Talla Ousmane. nuyu nañ ñëpp Ndeye Coumba Fall Biram duñ fàtte kenn Rose xam nga ñoom Eliane ak Mato tout ça. Dior Rose dañuy profité di ko jaale bàjjanam boobu nga xam ne génn àdduna di ko ñaanal fi mu jëm gënal ko fi nga xam ne nii foofu la na ko yàlla yërëm taxare jullit bu mu fekk si biir suuf daal parce que àddina loolu fi am rek demal la ak maa ngi ñëw ñun tamit yàlla bàyyi ñu fi yàgg ñu yàggale na ñaanal mais du ñu tamit internautes yi nga xam ñu ngi suivre Leewtoo TV yëpp à travers fàtte ku mel ni commandant Fall nekk fii camp Dial Diop maa ngi koy nuyu ak euh, chef John Sira nekk tamit fi nga xam mooy camp Abdou Diassé di nuyu tey daal maa ngi nuyu tey militaire yi ak paramilitaire yi moo xam ku bokk ci corps d'armée rek mm-hmm. Babacar a ngi lay fekk fa nga nekk di la nuyu di defal police bi mention spéciale ndax kere niñ taxawoo arène nationale bi rafet na trop te am na solo di ballu ñëpp ak di bal ñëpp ak Khadiros Ndiaye du ma ko fàtte Fatma Fall Bergamo Italie waaye tamit Xaarim Balla Gaye sama doomu ndey fan yi mu dem Italie moo ngi ko nuyu bu baax di nuyu waa Italie yëpp tuuti yaay sar tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm daal Aïcha. leen jox rendez-vous suba incha allah.